jërë ngeen jëf ku tëb dal ci xal wala fi nee nañu desene weneen tëbin élection présidentielle yi ñuy reporté l'observateur mi ngi ñuy wax yeneen i yu mën a jur ci réew mi ubbil yéenekaay bi dégâts ba ci njëkk gis ci wàllu koom-koom gi la di économie bi ne ak li xew ci Sénégal yéenekaay bi nee nañu mën naa tax investisseurs étrangers yi jël seeni koppar dugal ci réew mi taxaw laaj li ñu naan prime supplémentaire sur les risques d'investissement da leen jóg révolté leen ba ñu génn wax ko li ñu gis mooy ay pexe yu ñu nas ngir sànk démocratie réew mi te jàpp nañu ne tàmbaliwul tey ne Macky Sall ci la mës nekk ci fukkeet ak ñaar yi mu fi nekk mësuta jóg xëy dafay soog a ñi àndul ci reporté gi ñu reporté élection présidentielle vox populi nee nañu waa États-Unis ca la bokk yëkkati nañu seen kàddu di sàkk ci gouvernement bu Sénégal mu organisé wote yi ci àpp bi mu ko jàpp defee ko ni na woo xam ne bu ko wàccul ci musiba ci la jëm le témoigné dañuy xibaar ne communauté internationale bi am na jaaxle gu ci mbir mi ba moo waral ñuy dànkaaf waa CEDEAO nee nañu nañu respecté calendrier électoral bi département d'état bu Amérique am ci jaaxle ba yëkkati seen kàddu wax ko te dégg nañu kii di Ben Cardin di ab sénateur américain muy wax ne Sénégal mi ngi ci yoonu dictature wu doy waar tuxal gi ñu tuxal wote yi ak coow la ci juddu conseil constitutionnel ak i recours waa CEDEAO nee nañu na Sénégal organisé wote yi ci date bi mu ko jàppoon maanaam février 2024 élection yi ñu dàq ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre Les nee nañu ñi ci àndul ñu naan leen ay anti report seenug làng ngi gën di yaatu journal bi mi ngi ñuy xibaar it ne kii di Awa Marie Coll na delloo na président Macky la mu ko dénkoon Madiop Bitèye it Les Échos nee nañu dégg nañu ko ko ci xeex gi ñu ko bëgg a xeex enquête dina kay nee nañu bokk na cib campagne digitale bokk na ci takk ay brassard rouge bokk na cib grève général njiital kuréel gi di forum du justiciable di Boubacar Ba mi ngi ci xët mu njëkk journal point actu ma nga fay wax ne li ñu sàkk mooy ginnaaw élection présidentielle yi waroon am ci réew mi février 2024 nañu ko ba 15 léegi nag nañu organiser ab dialogue nu mu gën a gaawe toog waxtaan lu waay jàppoon cib xolom mu bàyyi maanaam dialogue ku ci téye warees na faa mën a nase ay pexe ngir dindi réeroo ak ñaaxo-ñaaxo gi am ci réew mi njiit réew mi Macky Sall ñooñom yi di waa Benno Bokk Yaakaar la mi ngi ñuy wax ne seeni député mu di groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar daje nañu démb ak taskatu xabaar yi fa la waxee ne fitna xët-xët ak tension gi amoon keroog ci assemblée nationale waaye yeewi askane ak waa taxaw ñoo ko fa indi woon les économies président groupe parlementaire ba di honorable député Abdou Mbow moo ko wax te yemu fa reporté gi ñu reporté élection présidentielle taxawaay bi ñu ci ak la ca def dañu koy assumer ñoom waa parti démocratique Sénégal seen waa di Karim Wade l'observateur mi ngi ñuy wax ne li koy yodd ndaw faux déclaration sur l'honneur bi mu def wax ca lu amul ci dossier candidature am bi nee nañu mën na koo jural lu nekk mën na cee dem sax ba ñu xañaat ko ak éligibilité keneen ku mu bokkal kaa moom Karim di docteur Rose Wardini nekk ca loxo yoon moom it ay mbiram mi ngi ci libération yëral xët mu njëkko bi liir ya woon ca pouponnière-am bii di kër yërmande te faatu journal bi ne nañu toll nañu léegi ci juróom-ñetti liir yu faatu ndax ci bébé yi ñu récupéré woon ca pouponnière ba da ca am ñaar ñu feebaroon ñaar ñoo ñi mujj nañoo faatu ca l'hôpital bu Kees